ñoo ngi nuyu mbokki taalibe yi fi teew yëpp ci bis bii nga xam ne Sëriñ Tuubaa ci boppam suñ boroom moo ko ko tànnal ndax ñu bari ñu doon liggéeyal suñu boroom subhanahu wa taala ba leen suñu borom gërëmee dafa leen a jox bis bis dafa nekk loo xam ne ab bunt lay doon bu ñu ubbi boo xam ne ay géej ji yërmande ak ay géej ji mucc ak ay géej ji xéewal ñoo cay saawaan day nekk bunt bu ñu ubbi boo xam ne suñu boroom subhanahu wa taala da ciy ubbi bu baax a baax a baax buntu yërmandeem ak buntu muccam ak buntu xéewalam muy loo xam ne nag gaa yi yàlla yu bari yoo xam ne jiitu woon nañ fi te doon liggéeyal suñu borom ba suñu borom gërëm leen defal na leen ko ñoo seen ñoñ ña ñu àndal bis bii nag di bis boo xam ne suñu boroom moom moo ko jox Sëriñ Tuuba ndax Sëriñ Tuuba la mu doon ñaan suñu boroom moom mooy dëkkub Tuuba Tuuba bu ñu ko waxee du suuf si rek walla garab yi rek waaye Tuuba ruu la ruu la goo xam ne ndax doomu aadama ci boppam doomu aadama ci boppam bokkul ak bàyyima bu dee bàyyima la moom li muy dégg ak li muy gis loolu rekk moo ko yitteel bu dee doomu aadama nag dañu ko dolli leneen loo xam ne moom la ñuy wax xel bu dee bàyyi ma li muy dégg muy dugg ci noppam baa ma koy xool mu nekk ci bëtam su loola xasee jàll rek jàll la amul fenn foo xam ne xëy na dafay dencuwaat ci biiram denc bu yàgg mbaa mu aat amaat ci geneen anam bu mu fay dundewaat di soppi ko ak wëlbati ku ci geneen anam bu mu fay dundewaat di yokk di dem di yokk di dem ba mën a indi leneen mën a indi leneen mën a jur leneen mën a jur leneen mën a jur leneen mën a jur leneen bu dee doomu aadama nag xel moomu nga xam ne moom la suñ boroom def ci moom subhanahu wa taala xel ci boppam mi nga xam ne moom la suñ boroom def ci doomu aadama subhanahu wa taala daf koo ubbil beneen barab ak beneen gox ci biiram daf koo ubbil beneen barab ak beneen gox ci biiram boo xam ne bokkul ak li ñuy xool di ko gis walla li ñuy làmp di ko daj jëmmi xel ci boppam moom ci boppam ab dëkk la am réew la ab xaalam la boo xam ne ci la doomu aadama di dund loolu yombuta xàmmee bu baax a baax a baax a baax moo tax foofa su jaxasoo nga gis lépp daal di jaxasoo su jaxasoo rek nga gis lépp daal di jaxasoo foofa mbir mën na faa nekk moo xam ne day dëgg lool ci ki nga xam ne dafa nekk ci biirum xelam te yow sax boo dee xool fii ci biti boo ko dee xool doo ko gis boo ko dee làmp doo ko daj waaye nit ki am lu muy dégg wala mu am lu muy gis wala mu am lu muy yëg loola neex ci moom ba muy rey ànd ak mbégte di tëb ak a dal te ña koy xool ñépp xamuñ loola la mu doon mbaa mu toog rek di am lu muy dégg wala lu muy gis wala lu muy yëg ba ànd ak naqar bay jooy mbaa mu gis lu koy xoqatal wala lu koy tiital lu koy xoqatal lu koy tiital di ko teqaleeg sagoom mbaa lu koy forcer di ko defloo mbaa lu koy forcer di ko dindiloo loolu lépp nekk ci biiram nekk yeneen kainaat feeñ ci melaw yeneen yeneeni jëmm ak yeneeni mbir yuy dund ci biir xelum doomu aadama di wax di jëf di dem ak a dikk di def ak a dindi te loolu lépp bokkul ak li nga xam ne moom ngay jàkkaarloo ci biti soo tëddee guddi di gént di gis àdduna bu mat sëkk bu dara manqué mu ci sa biir gént gént googu yaa ngi ci mbubb mi nga sol mi ngi ci sa kër mën na cee nekk sa njaboot mën na cee nekk say soxna tuubaa gépp xaj na ci réew mépp sax xaj na ci biir fenn fu ne nga mën faa wëndeelu dem loolu noonu ngay dégg ak loolu ngay gis loolu lépp ay mbir la yoo xam ne ci biir xel la taar foofu fi la doomu aadama nekk foofu fi la lépp nekk foofu mooy fi nga xam ne fi la luxa nekk te mooy làkk wi nga xam ne moom ngay wax ak mbooleem baat yi nga xam ne yaa ngi leen di wax suwar yi ñu àndal image yi ñu àndal yooyu yépp ci biir foofu fi la nekk ci biir alamul xayaal ci biir doomu aadama ci biira biira biira mu am loo xam ne dafa nekk ca kaw ba rek di féey am loo xam ne nag moo taa ca biira biira biira biir mu maana woo ni géej maana woo ni am ndox moo xam ne jàkkaarloo naa ak ay mbir yu mag ay mbir yu kawe ay mbir yu am solo waaye la ko koy nëbb làq ko ko ba du ca mën a feeñ ginnaaw la muy gis am na leneen loo xam ne nii ginnaaw li bët ak nopp di gis muy dugg ci xel amaat na leneen lu xel di gisal boppam te du jaar ci nopp du jaar ci bët loo xam ne du nekk sax xayaal waaye xaqiiqa lay doon waaye loolee day am loo xam ne moo koy làq moo koy nëbb ba du mën a feeñ mi ngi mel ni ndox moo xam ne danga koo taaj ndox moomu su dalee teey li nekk ci wetam lépp daf cay feeñ soo ko ci xoolee man ko cee gis waaye ndox moomu su fekkee dafa yëngutu dafa yëngutu bu baax dootoo mën a tee gisati dara ndax yëngutu ga muy yëngutu mooy tax dara dootul feeñ waaye su ne dégg tege benn barab su boobaa la ca witam lépp daf koy mën a séen nga xam ne xel xalaat gi muy xalaat di yëngutu fenn fu nekk mu dugg fa fenn fu nekk mu génn fa loola ni nga koy gisee noonu am na solo ci wet waaye day wëlbatikuwaat di ko làqaat leneen lu bari lu ko gën a mat lu ko ëpp doole loo xam ne bala mu koo mën a gis dafa dem mën a dem ba dal ba sedd bu demee ba dal ba sedd ca lay soog a mën a fortaatoo dara ca loola loola nag moom la ñuy wax te amul dafa am lu ñuy wax fikru ak lu ñuy wax te amul fikkur moom yaa koy téyel sa bopp di ko natt ak di ko xayma di xalaat di seetantal ak a seetlu waaye bu dee te amul moom loo xam ne nii la ak noppi la ak noppi la ak ak cell goo xam ne xel da koy noppi ne ko cell nga xam ne moom bokkul ak xalaat du am lenn looy téye di ko ràbb di xool ak a natt ak a xayma waaye ak noppi lay doon gu mat sëkk ak kenn gu mat sëkk sëkk sëkk ak noppi gu mat sëkk goo xam ne mooy ndox mooy mel ni ndox mu taal moo xam ne day daal di nag mën a jàkkaarloo ak la nga xam ne moom moo ko tiimu di ko séen buntu te amul boobu su ubbikoo ci la buntu ilham di tàmbalee di ubbeeku foofu fi la doomu aadama jokkoog li nga xam ne moom mooy doole ji nga xam ne moo jaar ci suuf si dafa jàll jëm si ci garab yi jóge fa jàll jëm si ci xayawaanaat yi jóge fa jàll jëm si ci doomu aadama bi mu dikkee ba nga amee tànk am biir amee loxo am bopp am dënn mu daal di jàll jëm si ci sa xol daal di jàll jëm si ci sam xel man nay jàll di sàkk di bind di wéy di wéy di wéy di wéy ci sa biir su fekkee ni ñuy ubbil nga ko ay buntam doomu aadama lu xóota xóota xóota xóot la moo tax bu ñu ko dee defar fu jaar fu xóota xóota xóot fa la ñu koy jaar ngir defar ko doomu aadama lu xóota xóota xóot la moo tax bu ñu ko dee defar fu xóota xóota xóot fa la ñu koy jaar ngir defar ko ba nga xamee ni nii ñi ngi wax tuubaa sëriñ Abdul Ahad am lu mu fi digle am lu mu fi tere taaliba yépp di ci góorgóorlu seen kenn laay kàttan daf leen a jaaxaloon suñ nekkee nag feneen fu dul tuubaa naka la ñuy def waaye daf leen a wax ne leen fépp fu ngeen nekk te la fa siñ ba bëgg di ko fa digle ngeen di ko jëfe la muy tere ngeen di ko fa moytandu jàpp leen ne yéen a ngi ci tuubaa tuubaa ci suñu biir la nekk tuubaa ci suñu biir ci lañu ko dëxëñ ci lañu ko denc ci suñu biir ci lañu ko dëxëñ ci lañ ko denc ak lam àndal lépp ñu ràbb ko ba mu àgg defar ko ba mu jekk nose ko nga xam ne nii ñu nosee ba ci bayiti xasiida yi ne lañu ko nosee nga xam ne fi mu ne képp koy moytu suñ tuubaa yow ci sa jëmmi bopp ak xasiida nga ko nose ci sa biir ba mu àgg soo ko xamee ak soo ko xamut soo ko yëgee ak soo ko yëgul ak buum la gu ñu raw tàmbalee ko ca suñuy maam jaarale ko ci suñuy baay indi ko ci ñun mu daal di cëppeelu ci suñu kaw nga xam ne dañ ñoo nose niñ nesooy xasiida yi ni lañ ñoo nosee nga nitam daal di koy doxañ denc ko ci suñu biir loolu moo tax léeg-léeg ngay mën a dem sax ba yëg yëg yëg yoo xam ne da lay ëpp doole doo xam fu mu jóge boo gisee mori di jël yi ñuy daanu lu leen ëpp doole la lu denc ci seen biir loo xam ne fees na leen ba ëpp na leen nga xam ne su ne xoymet duñ ko àttan daf leen di moom moom gu mat sëkk boo xam ne daf leen di tàqalikook si daf leen di tàqaleeg seen sab am na ay mbir yu xóotu xóotu xóotu xóot suñ borom ku màgg la ko kawe la ku yéeme la ko doy waar la mënumaa leeral lépp ndax su ma ko leeralee it du yomb a dégg waaye tuubaa googu sëriñ bi doon fàggu ci suñu biir ci suñu biir la ne mu ngi ci suñu biir xol yi ak suñu biir xel yi ak suñu biir woo yi ñu koy mën a dund fuñ mën a nekk loolu moo tax fuñ nekk rek muy tuubaa ci ñun loolu moo waral dëkk boo dégg léegi dañuy wax tuubaa nangam tuubaa nangam tuubaa nangam ndax ñun ña fa nekk ñun ñoo ko soppi def ko muy tuub muy tuubaa ci ñun moo tax ci suñ biir la nekk noonu it ni la nit mën a nekk ci biir dëkk bi itam te fekk nekkul ci tuubaa te nag ñu ngi ci biir dëkk bi di jaar ci tëli beeg mbedd yi di dox di dugg ak génn mën naa wër sax jumaa ji waaye fekk nekkul ci tuubaa su fekkee tuubaa nekkul ci xolam baatin moo ëpp saayir fuuf lu nit ñi xam lu néew la te yàlla xam ne lu bari ñi ñuy yebal ci ñoom ngir ñu di leen defar ñoom ñooy xam rek fa ñuy jaar ba defar leen waaye loolu doomu aadama yi sax mënuñu koo xam waaye tuubaa googee nga xam ne sëriñ bi mi ngi ko doon fàggu doon ko ñaan suñu boroom subhanahu wa taala loolu ci suñu biir la nekk ci suñu biir ci la nekk ay mbir yu xóot la bu ngeen déggee sëriñ bi di wax naan suñu borom day bind na ne dogal na ne baytullaahil xaraam malaayika yi danañu ko yëkkati suñu ko yëkkatee danañu ko yóbbu tuubaa te suñ ko dee yóbbu rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam day nekk ci biir loolu ay mbir yu xóota xóota xóot la yoo xam ne ci beneen dimension ci la nekk ci beneen boobu ci la nekk ci beneen dimension loolu lépp baatin la boo xam ne sëriñ bi fàggul nañu ko ba ñun ñëpp dugal na ko ci suñu biir denc na ko ci suñu biir loola xam na ko bu baax suñu boroom xam na ko ña ko yàlla xamal itam xam nañu ko nañuy sant bu baax a baax a baax fu ñu toll nañuy sant bu baax a baax fu ñu toll nga xam ne la mu àndal ci ay mucc ak i xéewal ak i ngëneel ak i tawfeex moom Tuubaa bari na lool ak njéggal nga ca biir ak mucc nga ca biir ak texe nga ca biir ngërëm nga ca ngërëm ma nga ca biir ak yeneen yu bari yoo xam ne fàggu na ko ca biir waaye loolu lépp moo taxoon mu doonoon lu jafe-jafe am mu doon ko ñaan suñu boroom fu mu toll ba ni nga xam ne ñe la ko ko suñu boroom nangule daal di koy jëmmal ci bis bii luñ yàgg waxtaane la ay yoonu yoon ba lu ca bari xam déen ko lu jar ma di ci jaaraat waaye mooy bis bi nga xam ne ci la demoon ci géej gi nga xam ne loolee mu doon ñaan te doon ko fàggu ci bis bii la ko ko suñu boroom may ngir mu nag tàmbali liggéey bi ndax dañ ko koy jaay te lañ ko koy jaayee ci bis bii nag ci la ko ko tàmbalee jënd ci bis bii ci la ko ko tàmbalee jënd ngir fay nag njëgu Tuubaa ba nga xam ne dana mujj nekk di nekk ci ñoom dëkkub njéggal dëkkub mucc dëkkub texe nga xam ne moom rek moo dem ba muy dem moom rek moo dem ba muy dem nga xam ne yonent yàlla Muusa alayhi salaam ba nga xamee ne ànd naa ak waa banu Israël bay dikk bay jub dëkk boobee nga xam ne suñu boroom subhaanahu wa taala daf leen koo fàggul ba mu waxee ne leen nañu muñ te gëm yàlla te jàpp ci yàlla te góor góorlu jëflanteeg ñi nga xam ne ñoom ñoo toog ci suuf si ndax ginnaaw ñun la ko suñu boroom jox te duñ ñu ko jox noonu rek ci neen nañu jëflanteeg ñoom ngir ñu mën cee jot lañ ko wax mooy ishab anta wa rabbuka fa xaatila inna hauna xaa'idoon demal yaag yàlla sa boroom su ngeen demee ngeen xeex yéen ñaar ngeen xeex ngir jot ci dëkk bi ñun ñoo ngi toog fii di leen xaar dañ ko ne demal yow yaag sa boroom bu ngeen demee ngeen xeex ak ñoom yaag yàlla yow Moussa yaag yàlla ngeen ngeen jot ca dëkk ba ñun ñoo ngi toog fii di leen xaar ndax foofa ay ponk la fa nekk yoo xam ne ñoo ñu sut fopp ëpp ñu fopp ëpp ñu kàttan ëpp ñu doole te ni ñu leen gisee mel na ne ay nit ñu soxor lañu duñ jàmmaar lu ñu demal yaag sa borom ngeen xeex ñun ñoo ngi toog fii di di leen di leen xaar loolu lañ waxoon yonent yàlla Moussa Sëriñ Tuubaa nag moom ci boppam la moom moo ñu waxal boppam nañu toog leen moom ci boppam moo ñu waxal boppam nañu toog leen xaar ma ma dem te ñëw ñëpp xam nañ ne ba muy dem booba tuubaa la doon wuti tuubaa la doon wuti suuf su sell sa dëkk bu sell ba dëkk bu laab ba suufu su mujj sa suufu su texe sa suufu su njëggalu su bàkkaar sa booba moom la doon wuti nga xam ne Moussa def na ñuy ñëw leen dem ñu lànk ne ko ñoom duñu dem demal yàgg sa borom ngeen xeex nga xam ne suñu borom mujj na leen ci teg fitna yëm leen cay teg danañ mujj coono yone yu jànkoonteeg moom bu dee kii nag moom daf ñoo noppal ndax moom daf leen daf moom daf ñoo wax ne toog leen xaar ma man ma dem te ñëw moom loolu la ñu wax bu nu ñëwoon jug leen comme ñun ñëpp danañ jug ca jamono yooye ndax booba day nañu sëpp ci baatin ak ci saayir te bu ñu laajoon suñuy deret danañ ko tóor lépp lépp loo xam ne ni def la bu nekk ci kanamam ten ko yóotu te loola laaj suñuy deret na ko saxaaba yi àndoon ak rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam doon defee waaye moom daf ñoo wax nañu tóog leen xaar ma ma dem te ñëw nga xam ne moom mooy dem lijjanti Tuubaa daal di koy indi te loola ba muy am itam ñëpp xam nañ ne booba suuf si am na ba noppi booba suuf si gis nañ ko ba noppi booba suuf si feeñ na ba noppi ndax booba sëñ bi wër na Tuubaa ba gis suuf si ba lim fiy fàggu lim fiy def ci ay fàggute bi saa yoo mu def ko fi waaye teewul mu wëlbatikuwaat di wuti Tuubaa teewul mu wëlbatikuwaat di wuti Tuubaa kon loolu moo lay xamal ne la du suuf si rek. ndax am na yu bari yu mu àndal ci ay parke ay ngëneel ay yiw ay ay xéewal yoo xam ne ñu bari ba ñu ko bëggee suñ borom ba mu leen waxee la la ca nekk dañoo dellu ginnaaw moom nag bañ ko ko waxee ci la jaayante lépp soo ko dem nag bu ci ko nga xam ne loolu moom moo yoonu géej gi loolu moo yoonu géej gi nga xam ne lañ ko la la la la ko noonu ya santoon su ko nangu woon kon du dem ndax ña ko nangu woon demuñu ginnaaw ba nag lu ne ña ngi koy wax di wane ne loolaa leen tee dem waaye lu wér ci wóor mooy yàlla xam na lépp waaye su nangu woon moom lañ ko sant kon du dem ndax am na ñoo xam ne demuñu ba mu demee itam lam fa daj lépp ci ay natt yoo xam ne suñ boroom daf ko koo teg mu tegoo ko ba mat sëkk ba mu ko defee ba mu àgg dellu siwaat ba mu dellu siwaatee ndekete liggéey ba matagul ca la soog a delluwaat gànnaar soog faa mootuli liggéey ba soog faa mootuli liggéey ba ba mu àggee ca xaama sahit naa bi karam mooy fa nga xam ne fa la ko suñ boroom joxe lam jaayante woon ak moom lépp te bëggoon ko ci moom te suñ boroom digoon ko ko ca la ko ko suñ boroom joxe waaye ba mu dellu si waatee itam la daloon yonent yàlla Muusaa daal di koy dal ci saayir ndax yonent yàlla Muusaa ba nga xamee ni nii ñëw na ba jub dëkk ba ba nga xam ne dëkk ba ubbiku na ba daanaka dugg ca rekk moo ca des daanaka suñ boroom daf ne ko kat dëkk bi doo ci teg sa tànk dëgg la yow yaay ki nga xam ne yow laa teg ci sa kaw sama yan sama liggéey ngir nga war a jàmmaarloo ak Firxawna ak Haamaana fa nga jaar fépp ngir xeex ak noonu yàlla yi ak taxaw ba ne Israël def nga ko ba mat sëkk yaa leen wammat jéggee ñoom Firawna ak Haamaana mi leen bëggoon a nopp def leen ay jaam yaa leen wammat jéggee ñoom jéeg ki nga xam ne mënuñu woon a jàll mukk te géej gi ne fi yaa ànd ak ñoom wammat leen di leen fàggul lu ñuy lekk di leen fàggul lu ñuy naan mooy man na salwa boobu nga xam ne suñu borom mi ngi ko doon wàcc ni doon ko dundee dem ba àgg sax ci di wàcc ay niir yu leen di keral ànd ak ñoom ànd ak ñoom ànd ak ñoom waaye suñu borom daal di ko ne daal suuf su sell see daal bëgg nga ko lool bëggal nga ko sa ñoñ lool fàgg nga ko ba lépp nangul nañ la ko am nga ko waaye nag doo ca teg sa tànk bu doon foo xam ne da ngay fay da ngay nekk ci biir suuf sa di fa dëkk di fa dund loolu coobaree suñ borom la suñ borom moom noonu lay def su la fonkee lool yëkkati la lool teral la lool ba mu yéeme ba jigg jayoo day wëlbatikuwaat nag wan la nag ne la moom mooy yàlla wan la ne la fii nag léegi nag fi nga may yem ndax man maa yàlla nga xam ne dëkk boobee ba ko yonent yàlla Moussa fàggoo ba mu àgg itam ba mu ànd ak bani Israël ba mu ñëwee ba di ko jug suñu borom daf ne ko doo ci dugg daal di koy jox ndigal mu dem ca kaw xeer wa ba mu demee ca kaw wenn xeer taxaw na di ko séen mu ne ko may naa la rek nga séen ko waaye sa tànk du laal suuf si foofee fa la ko daal di fa la ko daal di fabe fa la ko daal di jël moom yonent yàlla Moussa. waaye gis nga sëriñ bi itam bi ñu fàggalee dëkk bi ba mu àgg suñu boroom daal di doxal coobare sëriñ bi li mu gënoon a bëgg mooy nekk ci biir Touba gii fi nga xam ne fi la nekkoon naka jekk muy dëkkub ngëneel dëkkub yiw dëkkub leer dëkkub xéewal dëkk bu fees dell ak i gëneel moom la gënoon a bëgg daanaka ko dundam gépp moom la ci doon fàgg doon ko fàggul boppam ak njabootam ak i taalibe waaye suñ boroom dogal ca lam ca dogal noonu yàlla yi dox digganteem ak moom rek jële ko gànnaar yóbbu ca yéen jëli ca yéen yóbbu jaaree nga xam ne foofa fa la nekk ci saayir dañuy loolu lépp saayir rek la ndax ci baatin moom yàllaa nga ak ay mbiram waaye ci saayir nii rek foofee fa la nekk ci saayir ba ni ko suñu boroom jële moom itam yóbbu ko asamaan nga xam ne fii ak njabootam la fi dëgëral waaye moom suñu boroom dogalul woon mu war a doon koo xam ne ginnaaw bu ko fàggoo suñu boroom dogalul woon mu war a doon koo xam ne dafay nekk dëkk fi taalib yi di dikk di ko fi fekk ci ak dundam ci saa yi da ngay xool liggéey boobu liggéey boo xam ne sa dund gépp yaa ngi koy fàgg coono bu nekk nga daj ko ci ci di wër suuf si ci di wër suuf si ba gis ko ñu ne la suuf saa ngi nii waaye des na nag barke bi ak ngëneel yi ak yiw yi ak xéewal bi loola nag dañ koy jaay lo nga ne lu ñu koy jaayee ñu ne la ñu bari laaj nañ ko waaye bi ñu leen ko waxee dañu arrière nga ne man yaral na ma ko danaa ko gàdd ñu daal di koy teg lañ ko teg lépp mu daal di koy yenu dem ci géej gi ba àggal dellu siwaat ñu ne ko faaw nga delluwaat ci jéeri ji mu delluwaat ci jéeri ji ba suñ boroom defal ko lépp may ko lépp jox ko lépp waaye wëlbatikuwaat noonu yi ci coobaree suñ boroom ñu téye ko diggante ci yéen ak njaareem ba nga xam ne mujjul excité dëkk bi ci saa yi mu niroo lool ak li xewoon ci mbirum yeneen ci yàlla Muusa nga xam ne Haaroona moo mottali lenn la al yoo sax yoo sax ibnu nuun mottali leneen la ca des yoo sax ibnu nuun mottali leneen la ca des bu dee fii it loolaa fi xewaat moom itam Cheikh Mouhamadul Moustapha moo àggale yoon wa Cheikh Mouhamadul Fadal mottali la ca des ak Cheikh Abdoul Ahad loolu lépp booba ñii di dund ñii di dox ak a wax booba anañ boobu juddooguñu sax ñu ci bari bokk ñu ci bari bokk booba sax juddooguñu dikk buñ ci kaw suuf yooyu yëpp di ay pàgguteef yu xóot yoo xam ne ka ko doon liggéey ka ko liggéey ba mu àgg rek mu jëb mu mu daal di koy jébbal njaboot gi ak taalibe yi moom dundam gépp ay coono la dundam gépp ay coono la yoo xam ne daf ko doon sonn ngir njaboot gi ak taalibe yi te noppi loolu benn yoon ba ni mu wuyujee suñu borom subhaanahu wa taala waaye wa xumuri ilal jinaani xiidu wa xumuri ilal jinaani xiidu mooy sama dund ba ba àjjana noppalu la te loolu ki nga xam ne da nga koo gis dundam yëpp mu koy sonn moom moo lay wax ne la te sama dund ba ba àjjana noppalu la loola la muy tekki mooy déewul faatuwul ba fi mu ne nii mu ngi dund ci suñu biir ba fi mu ne nii mi ngi dund ci suñu biir mi ngi ci suñu biir di dund ci suñu biir suñu biiri xel ak suñu biiri xol ak suñu biiri ruu di def ci ñoom di dund ci ñoom dañuy def sëriñ Tuuba nga xam ne noonu ñu ko waxee ba fi mu ne nii ñu ngi dund ñu ngi dund ci suñu biir saa yoo xamee ne nii leeram feeñ na dañuy daal di ñàkk sax dootuñ amati suñu yëkkati suñu waxee ci moom ba mu ba mu ba mu teew na iska yi ba boobaa kenn dootu fa nekk boobaa moom rek moo fay nekkati léegi bu xasida yi mu doon tagge yàlla ak rasulullah yi jollee fa leeram gi jege gën a jege gën a feeñ si su boobaa yow ci si jëmm bopp yow da ngay nëbb yow da ngay làq dootoo fi nekkati boo gisee am murit yuux ba ca kaw ne datt ci suuf la ko waral mooy dafa nekkatul ak leer bu ko ëpp doole moom moo ko feeñ ñooñu nga xam ne dañuy jaamu ay rab dañuy jaamu ay xërëm di jaamu ay rab suñ bàkkee seen rab yi seen rab yi dañuy feeñ su fekkee ni bàkk nañ seen rab yi da ngay gis rab yi ne xoymet daal di feeñ di wax ak di def loo xam ne wax yenu rab la ak jëfinu rab waaye doonutul wax yenu diw nii ak jëfinu diw nii loolu lu tuute la lu woyof lu ay takkandeer rek la ay xollit rek la ay guubit rek la leerug yàlla ko féete ko fuuf ak leerug rasulullah ak leerug xaadimu rasul saa yoo xam ne nii leeram feeñ na loolu mooy tax murit bi dootul moomati boppam di yëg ci biiram lu ko ëpp doole di yëg ci biiram lu ko ëpp doole leer bu set ci biir xolam ba seey ba mu jeex ca takk ba nga xam ne dootul nekkati leer kese lay doon léegi loolu leerug sëriñ Tuubaa la kon sëriñ bi jógu fi ba tey mi ngi fi yooyu yëpp dafa xóot lool moo tax du ma ca mën a sori lool waaye li mu yitteel mooy bis bi nga xam ne mooy bis bii ñu nekk nii tey nga xam ne noonu ma ko waxee ba mu ko fàggoo ba coono yu nekk mu daj ko ca daf ko wëlbatikuwaat nag daal di koy jël daal di koy teg ci suñuy loxo jël mucc gaag yiw gaag xiiwal gaag lépp kenn ku nekk mu jox la ci ba nga feesal dell nga xam ne sëriñ bi ni mu yéwéne moom rek moom moo nu yéwéne ndax ba muy dem moom dong nga demoon liggéey yi waaye ba mu demee lam am dafa wëlbatikuwaat daal di daal di ciy sédd ñëpp daal di ciy sédd ñëpp kenn ku nekk mu jox ko lu ko doy ba muy dem moom rek a dem sonuluñu ci daf ñoo bàyyi ñu toog moom dundam gépp mi ngi koy sonn te bi mu sonnoo ba àggal lam doon sonn lépp da koo jël jox ñu loolu mbir mu yéeme yéeme ba muy dem sonalul kenn moom doo nga dem te ba mu demee coono bu nekk daj na ko te lam doon sonn lépp dafa wëlbatu ko waat tegaat ko ci loxoy taalibe bi nga xam ne moom dëkk bi sax nit mujjul doon ku fi dëkk ci saa yi waaye nag dëkk na fi ci baatin moom rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam ak baatinu baytullaahil xaraam lépp mi ngi fii ci Tuubaa kon nag bu fekkee moom moo jàpp bis bii nga def ciy sant suñu borom ci xéewal yi mu ko defal daal di ñuy digal nag ñun taalibe yi ne nañ ko ci sant le kon ñu war kee sawar lool ñun ñi nga xam ne ba muy liggéey ñun ñoo taxoon muy liggéey ba xéewal yi dikkee it ñun ñëpp mu jël daal di koy jël séddale ñu kon cant gi ñun la war waruñoo xaar sax ba kenn duñu naan kenn duñu wax naan sant le leen waruñoo xaar sax ba kenn duñu wax naan sant le leen ma ci cant gi ñun ñoo ko moomal suñu bopp di ko ci jiital moom Serigne Touba di ko ci sant di ci sant rasulullah yi mi mu doon liggéeyal di ci sant suñu borom subhanahu wa taala kon bis bi bisub sant suñu borom la subhanahu wa taala sëriñ bi di ci sant doon ko defal boppam daal dina digal na ñëpp bu dikkatee ñu ko ciy sant la kon sawar nañ ci lool ci sant ne ko ci suñu borom subhanahu wa taala di ko jiital ci cant bi sant rasulullah yi ñu doon liggéeyal ak suñu borom bi nga xam ne moom la doon jaamu te doon ko sàbbaay ba mu gërëm ko jox ko lam ko jox kon ñoo ngi sant bu baax a baax a baax sant Serigne Touba mbokki taalibe yi nga xam ne nii itam ñoom lañ bokkal cant gi ñoom it seenu cant mat na sëkk seenu cant mat na sëkk waaye loolu lépp danañ ci dellusiwaat ci beneen xaaj ba ca des insha allahu fi mu ne nii moom matal nañu xaaj bu njëkk bi mooy xaaj bi nga xam ne moo aju ci bëccëg bi matal nañu te lépp itam suñ boroom nangul nañu mu des nag xaaj bi nga xam ne moom moo aju ci guddi gi moom it niñ ko daan defee rek nga lañu koy defee jàng alquran ak ay xasiida ak sikkirullaahi alquran ak sikkirullaahi ak xasiida ak xitma yeeg yépp rek yamay àndal dañ ko daan baaxoo di defee ni lañ koy defee insha allahu ci guddi gi fi mu ne nii nag moom ñii fi jot a teew yeewu nañu leen ngir ku ci am ay yitte su ko neexee mën na caa dellu insha allahu nag mu des benn xaaj bi nga xam ne mooy xaaju guddi gi moom itam suñ ca àggee rek ku ko mën a teewee mu teewe ko moom it luñ ca man rek ñu def ko ca ngir dundale ko bis bi baax na jërë ngeen jëf asalaamaaleykum wa rahmatulah bismillah
waaw waaw iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Amin.
ihdinas siratal mustaqim siratal an'amta alayhim Amin.
ghayril maghdubi alayhim waladdallin waaw
يحزن القلوب من شبهك يصيب نعم. waaw Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin.